بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه dañuy ñëw ak yéen seen culture yi nga xam ne yéen ko baaxoo di ko ànd ak ñun ci waxtu wi la mooy doa wi na sit dañu ko tàmbalee ak ndongo yi la ak ñi koy mutaaba ci ay gox muy diwaan bi boo xam barke la doy na ret la borom diwaan bi waxoon ni sama diwaan daal mooy meññetu xol sam waaye ànd ak loolu yëpp daan na bichara ndonge yi leen wa inna xutuuti lil anaami saada falam yashqa yowman man raani wa xatiya وعجوجنا نين نين أتنينكو إنه ما قلت هذا دون إذن وإنني لعقد مسرا لا يباع لغيري باي كيبكو قمني أجد توبيم لا جاسنا مير مندم يقال نقصا حتى جوائر الرسائل ويغني ولا بد لمن يريد الانتفاع بحفظ ما يصدر منا min al wasaaya nazman wa nathra bu bëgg a jëriñu waaw foofu muy wut di mokkal la gongee koo ci ñun moo xam lu ñu wala lu ñu te diwaan wii de moom lu ñu kon ndonge yi mu taabaa diwaan wii xam nañ waxi Mawlana Cheikh boobu ah déglu ñu ci diwaanu tey surul wusul ila hadrati rasul جي حرف الالف مولا موي تيسر الوصول الى حضره الرسول بين رد اشاره ويغني وقد علم الاقوام اني قديم فوصل حبيب الله يلفى بوصليه وكو اشاره لا تدان وخني واتوي لمن قد حبني كل مهمه الى حضره العليا ولو كنت رامزا من عفا أي جميع الرسل أي محمد فمنه إليه كل شأن معمر مواهب رب العرش طه محمد ورحمته وهو الرحيم فأكرمه بشير نذير مقسط وهو قاسم جواد كريم باسط الكف منعما مقفى أمين وهو في, في الرسل مجتبى حبيب إله العرش بدءا ومختما وعبيد يستسقى الغمام بوجهه به نار الليل الجهل إذ كان مظلما قلوب جميع القلق أحيا بالنور وألسنهم أحيا فزكى وعلم والله لا تلفي لأحمد السعدية فأحمد فرد جوهر لن يقسم عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب الكرام ذوي النوى معلنة الشيخ من ديوان بي ah lan lay ci diwaan bi mooy tagg yenent bi yenent bi muy tagg nag ñi xam ne ne fa ayu jamii rusuli kéem taanuku mboolem yenent yi yëpp ayu muhammad mooy kéem taanuku yenent bi taate fa minu ci la bokk ilay ci lay jëm kulla sha'ni bépp mbir muhammad mooy aji matali mina ay yenent yëpp seeni kawte yi am yëpp mooy kawteef yenent yi rek ndaxte lu ñu am yëpp mu ngi jógee ko ci yenent bi te ci moom lay dellu bépp mbir rek moom yenent bi aji matal la ko dellul ci imaamu Muhammadul Bushayri radiyallahu anhu daan na wax ne faaqa nabi daan na wax ne wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan min albaari aw rasfan min addiyami wa waaqifuna ladayya inda haddihim min nuqtati alilmi aw min shaklati alxikami a minaa yenent yi daal kulluhum ñum ñëpp bul tamisun aji sàkku lañu rasulaa ci yenent bi xarfan ak tànqit min al bahri ci géej wi te yenentu may géej wi ah ñoom kat ñu ngi sàkku ak tànq ci géej gi aw rasfan wala ñeerit mi na diyemi ci waame bu fekkee tu waame daal ñoom ñu ngi sàkku ak ñeerit bu dee géej la ñu ngi sàkk ak tànqit ah jógee ko ci yenent bi kon loo gawsi zamani wax ni fa ayu jamii arrusuli ayu muhammadin fa minhu ilayhi kullu shahnin muammama waxtaango mawaahibu rabbil arshi kooku mooy Taha Muhammadu mawaahibu mayek rabbil arshi kii borom arash wi Taha kooku mooy Taha yàlla daal borom arash wi li mu mayee mooy Taha mu ngi xam ne Muhammadun mooy ki ñu sant te kooku mooy yërmandeem wa rahmatuhu mooy yërmande yàlla تيم ويرمانك مولم من دف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تي أهم ميلن تبي الرحيم ويأجيرم تلت يوم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف الرحيم من عفا أكرم ما لن تشامن يما لك تدنغ البلد ما ينتبه قمني الرحيم أجيرم وتمني مواعب رب العرش mayeeg borom ak aras yu daal taha kooku mooy taha muhammadun kooku mooy kuñ sant ki wa rahmatu mooy yërmande wi te waxu moom rahima aji yërëm fa akrima yéemal ak teranga woowu yenente woowu di may ko rabbul arsh bashiru aji bégale képp koo xam ne topp na njub nasiru mooy aji xuppe képp koo xam ne jajju na ah képp koo xam ne topp na yoon ak safaan mu xupp la jajj la pour nga teg ci tegu ci yoon njub muqsidu muy aji man woo moom qaasimun muy aji séddale jawaadi muy aji tabe karimun muy aji tëdd baasitul kafi muy aji tàllal tënkam mu nicmada aji xéwale kooku mooy yéen bashirun nadirun muqsitun wa qaasimun jawaadun karimun baasitul kafi mu nicma muqaffa kooku mooy ku ñu topp mooy ku ñu aminun mooy ku li teg yàlla moom mujj tabaa mooy tànneef fi rusuli ci yent yonent yëpp moom lañ tànn ba xataa ne qad istafa min mustafa e yonent bi Mawlana Cheikh yaxal na loolu kooku daal mooy ko ñu tànn tànn gi ko tànn ci biir rek tànn yëpp lañ ko tànn waaye dañ kaa tànn ci biir yonent yi yonent yëpp cent vingt quatre mille profil la ñu tànn ko ci biir mu ci biir ñu jël yónni ci mu ci biir di tudd fukk juróom ci alquran alquran tudd fukk juróom mu ngi ca biir ah ñu jël ulul mu ngi ca biir mu jël drapeau kooku wa huwa mujtaba fi rusul aw wa huwa fi rusul mujtaba habibu ilahil arshi mooy soppeeg yàlla aras wi yàlla yi nga xam ne mooy borom aras wi soppee mooy yenent wi te daan na jàngale moom borom téere wi ba yegg ca laay ba wattaxasa allahu ibrahima qalila وإني فرق بين الحبيب والقليل من القليل daal yu'ti ba'da talab waaye am alxabib nag yu'ti bi duni talab min alqalil dina sàkku gannaaw bu sàkku ñu jox ko waaye xabib moom du sàkku dañ koy jox rek ah mu indi ay laay yu bëri di koy leeral xalil ba mu waxee inni zaahibu ila rabbi nga xabibu ma waxu dara alqaanab ne ko subhaana alladi asra bi abdi laylan ila almasjid alxaram ليلا من مسجد الحرام الى المسجد الاقصى من عابد ان سنجل بين ومحتم اكمج سنجل بين اكمج يبنت وقفاك موي كنو توبك موي كنو كنتو امينو موي كولي تيغيتي وهم موي توا موي كنو تان في رسول تي يننت حبيب الهي العرس موي يلاك بروم عرس بي بعد ان سنجل بين ومحتم اكتي مج وكو موي وابيض موي اجي ويخ تي تلماي استسقى دفن سكو نندل الغمام نير بوجهه تكل ماي وخجينا بايتغم جيتنا موق داتي وا قريشي بو نيكي تي بيكور ابو طالب وينتو مي غوني مو جيل كو جيل كانام جي جوبلو كو تي نيرو رك مو دالدي دوتيك ابو طالب دا دوي وي وي يويو ني الغمام بوجهه ثمال الجتامه عزمه للارامل يلوز بالهلاك من ال هاشم فهم عنده في نعمة أو في نعمة وفواضل من وعبد ينتوي كنم قاعد يغلى ير إذا قادف ننساكو نندو الغبع منيري بوجهي جلمين وعين توو ثمال اليتامى موي دغر لو واي نجرمي عزمت موي متشو واي للارامين ني امو دارا كوك موي ينتو اعموم لا مولانا الشيخ معنا وو جلني وعبيض يستسقى غمام بوجهي بين نارك ليل الجهل اذ كان مسلما bii ci yenent bi naara la léeree lay lu jëli ah lëndëm ak réer il kaana bu mu nekki muslimaat di aji lëndëm ah si yenent bi la léeree qulubu jamii al xalqi xolik mbooleem mbindeef yëpp ahyaa dund nañ bi nuur yi ci leer ak yenent bi waal sunu ak seen làmmiñ ahyaa dundal na ko mu yenent bi fa zakka sellan na làmmiñ yi waaye sellan na xol yi wa allama taqamal làmmiñ mboolem mbindeef yëpp daal seeni xol yi nga dundee ci leer ak yonent bi te kawtif noonu rek la mën a nekk noonu la mën a demee seen ak làmmiñ tamit yonent bi dundal na ko sellal na xol yi daal xamal làmmiñ bu moom Muhammad li ñu wax yëpp xam nañ ko kon yonent bi moo leen xamal waaye moo sellal seen xol moo leen a cheikh ne qulubu jami al xalqi xolam mboolem mbindeef yi ahyaa dundal na ko bi nuur yi ci leer yonent wi wa alsanahum ak seen làmmiñ ahyaa dundal na ko fa zakka sellal na xol yi waaye wa allamaatee xamal làmmiñ wallahi laa tulfi li ahmad thaniya fa ahmadu fardun jawharun lan yuqassama e mu indi qasam na wa wallahi maa ngi gën ci yàlla laa tulfi doo fekk thaniyan kuy ñaareel la ahmad ñeel ahmad ñu ne kaa ah, lu waral loolu mi ne fa ahmadu ahmad fardun fardu la آه، فرد جوحر آه، جوهر فرد لا وقمني لن يقسم كندكم من السدل والفرد منه ما أباه قسمه وقابل لانقسام الجسم فرد موي آه، وقمني أسدل نكبم يجب دعك وقمني هذا في بن أكسدلو ينتمي من فرد لا وقمني نقول أكسدلو كن والله لا تلفي لا أحمد الثانية أعدان نجنيات فيني حلفت يمينا إنه الدهر مفرد fala yata'atta an yusanna bi taarifi mi ne maa ngi géñ ak ngéñ innawu naka moom yéen a dërët di te joonu mufrad mufrada lay doon fala yata'atta du jàppandal an yusanna ba ñaareel yeneen tubi bi taarifin ci keneen ah koo xam ne dañ koy ñaareel léegi yeneen tubi ndaxte moom fardun jawharan dañ yuqassama وتمولنا الشيخ والله لا تلفي لأحمد الثانية فأحمد فرد جوهر لن يقسم عليه salaatullahi summa salaamu ma al ali wa sahbi alkirami zawin nama min ali yéen a nekk ci yénent bi salaatullahi jullit yàlla summa salaamu topp sëlmalam yéen a nekk ci yénent bi waaye mu ngi lay bàyyi loolu laay xadis ba laa tasallu alayhi salaatul batara te mooy julli gàtte wu njàdde mooy julli ci yénent bi yem ci moom te julli woo ci ay ñooñam ma mao la ne cheikh ni ma al ali ak ànd ak ñooñam وصحاب يك صحاب الكرام يباخي زوي النماني يبرم يكتب كهدا نوغنا عليها صلاة الحق بالحق وحدها لعلا تكون بطرة من عين مواصل تيكوك القرآن يخلنك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تيب ودمكي عند اللغي علماء اللغي لن يغني صلاتك يلا كين أنت بكوك رحمة وهي صلاتك malaayka yi ci yonent bi kooku istigfaar la salaatu ko aadama yiin mooy doomu aadama ci yonent bi kooku doa la ak loolu mooy darsu wi nga xam ne foofu lañ yemandeeg yéen fa ayu jami rusul kéem tax nag mboolem yonent yi ayu Muhammad mooy kawteefi Muhammad fa minu ci moom la jóge ko ilay ci moom lay dellu kon la sox nañ bépp mbir Muhammad ma aji matale ko mawaahibu rabbil arsi may yàlla ak aras wi taha kooku mooy taha muhammadu mooy ku ñu sant gi wa rahmatuhu mooy yërmande te woowu moom arrahimu aji yërëm fa akrima yéemal ak loolu bashiru mooy aji bégle nasiru mooy aji xuppe moxsiru mooy aji mandu woowu moom xaasi mooy aji séddale jawaad mooy aji tabe karim mooy aji tëdd baasudul kaffi mooy aji tàllal tinqam mooy amaade aji xéewale mu mooy ku ñu topp aminun mooy kóolite yàlla yi woowu moom mu mooy ku ñu rusuli ci yéen habibu ilaahi la arsh yi mooy soppeeg yàlla aras wi badan ci njëlbeen comme axtama ak muj waa ab yadu kooku mooy aji weex ci kilma yi istisqa def na sàkko nandalu alxamaamu niir bi waji yi ci kilmaam bii ci yonent bi naara la leeree laylu jahli lëndam ak réer is kaana boobu nekkee muslima addi lëndam qulubul jami al xalqi xoolek mboolem bi nii fi ayaa dundeen dund nañ bi nuuri yi ayaa dundal na ko bi nuuri yi ci leeram wala ayaa dund ñu ngi dund bi li ruyi ci leeram waal sa moom ak làmmiñ ya ayaa dundal na ko mu yent bi fa zakka sellal na xol ya waaye wa allama te xamal làmmiñ ya wallahi maa ngi gën ci la laatul fii doo fekk ثانيا كنياري لأحمد نيل أحمد فأحمد أحمد فرد كان لا جوهر تيورس لا ينقص ما ديو كسدلي علينا نكسمون صلاة الله جلك يلا ثم سلام تبوس الملك مع العادي عندك نيوني وصحابك صحابا alkiram ñu baax ñi zawi nima nawa nama ñay borom ak yëkkatiku wa sallallahu wa sallama ala sayyidina